asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne dafa leen vidéo mbokk yi comme ni ngeen gisee maa ngi plage nii maa ngi géej dama bëgg nag jàllale benn message boo xamante ne samay vidéo yëpp war naa ko jàllale donc boo dëkkee Bargny euh, ñu ne la am na benn gaal bu def 200 personnes ça fait 26 jours kenn gisu leen euh, li ñu mën nag franchement mu bari mu néew mooy euh, ñu wax ak suñu état parce que boo xoolee tubaab yi benn nit bu réeree ci géej benn nit bu réeree di nga gis ne ay hélicoptère dinañ dem ay donc marine bi dinañ dem mais fii 200 personnes 26 personnes 26 26 jours ba tey gis ñu dara xew quoi lu dul peut-être def nañu ay ñaan mais li ñu mën bu fekkee mën nañu dégg moo ñu jàppale ñu parce que ñun suñu ay frères ñoo ngi si da ngay gis famille lëmm dem si benn si génn gaal googu 200 personnes ngir yàlla lu ñu dimbali dimbali bu baax a baax bu ñu mën a yóbbu ay hélicoptère marine bi dem xool ñooñu avant avant même gaal bu Bargny boobu am na yeneen gaal yu réer te ay doomu réew mi lañu donc am nañu njëriñ si réew mi donc nañ leen dem gestu xool leen parce que c'est difficile

décembre ñu ngi siy dugg nii après décembre janvier 13 janvier le Coupe d'Afrique du commence donc ñëw na après et que Sabaly mën fi ñëw nit nekkaat 100 pour cent extraordinaire mën ta nekk man je crois pas mën na nekk ah mën na nekk y a des jours comme ça comme comme Rhys James day blessé lu yàgg mi à à tout moment bu ñëwee da ngay gis ne Rhys James mi c'est comme blessure bi teew ko jàpp sonal ko quoi donc euh, c' est à Aliou c'est franchement de fekkee mu baale mën na baale mu baale quoi boo ko laajee nag danaan aw mag problème mais y' a problème parce que lan moo tax y' a problème bi Coupe d'Afrique bii mujj bu ñu koy gagné boobu Bouna Sarr amul benn temps de zéro temps de jeu Nampalys moom doon ko jox temps de jeu carrément xam nga da ko ligue du ligue des champions sax si liste bi. mais du dara kii boole ko si liste bi euh, di ko jox temps de jeu am ci moom confiance euh, di ko dugal am na temps de jeu ligue des champions jeune championnat titulaire coupe d'Allemagne malheureusement dañoo toog pour man c'est à Sadio Mané bi xamante ne. kii di Bouna Sarr xaritam la moom leader la Aliou Cissé mën na ko déglu Koulibaly bi xamante ne aussi tamit euh, Bouna Sarr xaritam la moom leader la capitaine la euh, moo nekkoon euh, ñoom ñaar ñoo match xam donc mu xam le profil propre ak absence absence de sabali, xam donc comme sabali Sabaly neew neew fii et que Krépin Diatta dañu yaakaar comme latéral droit pour mën comme que dañu dem si benn compétition pour jël benn mbir la test de Kalidou Diatta pour moi dans une défense à 3 mu jouer piston mais dans une défense à 4 bi nga à ne c'est Cissé moom la nar pour moi à la place d' Aliou Cissé euh, à la place de Sadio Mané ak kii di Kalidou Koulibaly bu fekkee benn tweet bi mu def ay man euh, tweet bi c'est simple quoi loolu ku frustré rek moo koy wax mooy bon boo jiitee euh, nga am kenn si ñi nga jiite am problème da nga ko war a dem gëstu boo nekkee leader mu nekk benn message bu xamante ne bon peut être Aliou Cissé ni mu ko jëlee neexu ko mais pour moi c' est à c' est à Sadio Mané c' est xëy na def nañ ko ah li may wax nii xëy na def nañ ko mais bu fekkee def nañ defuñu ko euh, nañ ñu dimbali dem wax ak euh, suñu coach wax ak suñu coach wax ak moom mu woo Bouna Sarr man par exemple euh, entraînement des Lions yi mujj nii amu jot nañu waxtaan mais amuñu fi temps bu doy bu ñu amoon temps bu doy dem na kaan coach boobu dafa yàkkam dem na kaan coach mais wowal Bouna Sarr suñu waa ji je contre Noah Fadiga parce je rien contre Formose Mendy Yalla xam na ne aw mak si ñom yeen jam rek la leen yéne. bu ma soññee ñu nek champion Formose li may wax ni mën na mën na ko mën na mën na dégg def naa moom ak interview ne Formose bu ma soññee Coupe d'Afrique finale jot nga duggal mbëkk loolu la lay ñaanal ñëpp loolu la lay yéene mais en matière de football da ngay xol sa intérêt da ngay xol sa lan moy sa avantage lan moy inconvénient yi poste latéral droit la Coupe d'Afrique bu métti lañ jëm foog ñu xool liy baax si Sénégal et que Bouna en terme d'expérience li mu woon a dal na xelu Sénégalais yi que ça soit défensivement, que ça soit offensivement. Donc c'est au coach à lui de pardonner et d'avancer. Euh, et pour moi, du Koulibaly et euh, Sadio Mané, war nañu wax ak coach xam donc euh, mu wax ak kii di mu mu mu mu na sa bu sa dernièrement def na vidéo ndeysaan xam donc di wax ne bëgg na ñëw mais coach bi mooy def décision chaque chaque trêve internationale bu ko neexoon mu toog Bayern ne mais day ñëw Dakar xam donc préparateur physique di ko entraîner loolu yëpp def pour pour dellu si équipe du Sénégal donc buñ fuñ wowe ay jour yu bari yu xamantene sa ki di football tour ne joue pas en club xam du ko dalal flam mom da ngay convaincre mais fo wowe football tour man nga wo buna sar donc lolou ben vidéo buñ bëggun jallé la ma ma bayilé nak yeen ci commentaire yi euh, ngeen wax ci seen xalaat ak seen gis gis jaajeufal na leen wax leen ba benen sur seen football tv